yaakaar boobu donc c'était bien ñu éclairer li nga xamante ne moom moo di askanub Sénégal euh, professeur ñu ñëw ci yow. ak euh, par rapport à la question de Pape Moussa. Mhm. par rapport ak débat bi nga xamante ne sur le franc CFA tey yéen seen candidat moom moo ko évoqué. Ah. ça a suscité un tollé également tey jii explication boo xamante ne tey moom mooy tax sénégalais yi ne. Mhm. lii jaadu na. waaw euh, jërëjëf soxna Awa bi moom laaj bu ma laaj bu ma ñor la. ndax euh, chaque fois damay wax ni le débat économique euh, ci suñu place publique yi. Mhm. moom moo fay le parent pauvre. Sénégal ci politique la gën a wax que ci économie. Mhm. donc man je me réjouis déjà. que des points qui son dans notre programme. Euh, je veux dire Diomaye président point yooyu nekk ay ay source de discussion yoo xam ne aussi bien des acteurs politiques que les intellectuels ñu ngi taxaw di ko waxtaanee loolu déjà. mbégte la parce que Sénégal baaxoo ñu waxtaanee programme. Mhm. on parle que de personnes et très rarement d'idées. Mhm. Euh, li may njëkk wax par rapport à euh, dégg naa ay kilifa yu mag wax ci dégg naa sax ay enseignants à l'université euh, wax ci. Mhm. mais li ñuy wax ay njumte la. dafa bëri ay njumte yu ñuy wax sur la question bi may njëkk wax mooy dama yéemu ci gis Sénégal. dëkk bi nga xam ne nee na dafa am indépendance depuis 64 ans. dëkk bi nga xam ne mu ngi gérer armée bi. armée moo gën a moo gën a yéeme moo ëpp danger kuy gérer armée te créé woo guerre mais kooku la moo war a taxaw lu mën a gérer moo ne man si genre. man cette neurocolonisation là que les gens ont. ba gëm nañu ne y a des choses yoo xam ne ñu ko gérer. man loolu moom njëkk a posé problème euh, Pape Moussa. donc euh, may rappelé nag. que jamono bi ci échiquier bu ñu toll ñun fii au niveau Sénégal dañoo nekk euh, ci benn ci benn cérébé yoon on a une monnaie régional bu tudd mhm. UEMOA monnaie boobu mooy la franc fa n'est-ce pas ouais. dañoo am une monnaie mhm. régional au sein mhm. de la zone bu tudd UEMOA bi nga xam ne mu ngi tudd le franc fa boobooy mooy euh, première chose. français CFA boobu nekk ci benn situation de fragmentation géoéconomique et surtout même de perturbation politique yoo xam ne aujourd'hui am na si ñett ci ay dëkkam yoo xam ne ñu ngi wax waxu benn alliance bi yoo xam ne mën na leen yóbbee ñu am seen monnaie bopp. mën leen yóbbee ñu génn sax sur la zone CFA. oui donc lii déjà c'est une menace directe bi nga xam mu ngi taxaw ci kanamu Sénégal. Mhm. ñu nekk ci benn échiquier bu gën a ngand muy échiquier d'une monnaie régionale à l'échelle CEDEAO. Mhm. avec les quinze pays. Mhm. monnaie boobu li ci yàlla xam doy na. ndax euh, on avait un scénario bi nga xam ne bu ñu tëggoon. oui depuis deux boobu waroon na am. monnaie bi amul. ñu dàqaat ko ne diggante deux mille vingt quatre lay am. oui dàqaat nañ ko aujourd'hui à deux mille vingt ndax ñetti scénario yu ñu waxoon muy le big bang mooy naka la ñuy régler toutes toutes les les questions macroéconomiques de convergence. Mhm. pour ñëpp demandoo sur la monnaie loolu mënul nekk. Mhm. ba 2030 du am parce que critères de convergence yu ñu jël c'est des critères de convergence nominales yi nga xam ne si bëri elles sont conjoncturelles yooyu demee ci am si monnaie sax yi tàppale la bokk. ñu ne deuxième scénario mooy scénario euh, effet graduel. dëkk yoo xam ne pare nañu respecter l' ensemble des critères yu nekk dans le PCCS euh, mooy le pacte de convergence de stabilité de croissance et de solidarité. Mhm. ñu respecter critères de premier rang deuxième rang yëpp mu leen demandoo créer la monnaie. loolu aujourd'hui su ko xoolee ça c'est kon pays UEMOA yi ñoo war dem li tamit problème la. Mhm. ndax ñi amuñu poids économique boo lay yóbbu la monnaie à l'échelle CEDEAO. Mhm. ndax bu ñu fàttali Nigéria kese c' près de Euh, population am kese c'est plus de deux cent millions d'habitants donc poids am dans la zone mënuñu def une monnaie sans moom. Mhm. troisième bi moom la ñuy wax le schéma euh, la masse masse critique mooy su amee soixante dix pour cent des pays yu respecte critères yi ñu demandoo vers la monnaie. lii c' est impossible parce que Nigéria moom kese 70 pour cent c'est-à-dire kon Nigéria heure bu mu paree la ñu war a dem sur la monnaie donc scénario bi nga xam ne moom la feuille de route CEDEAO teg. may ñu ñun en 2027 ñu am une monnaie déjà li tam benn problème la. Mhm. mu am benn facteur <coughs> muy la monnaie unique africaine. Mhm. ndax Sénégal dafa bokk Union africaine te Union africaine dafa am benn plan monétaire bi nga xam ne ñu wax mhm. bi nga xam ne tëral na ko avec l'ABCA muy l'association des banques centrales africaines. pour demoon vers la monnaie unique africaine en 2021. oui 2021 mujjul am. léegi instant ñu ngi wax léegi waxu donc soo xoolee kon y une imbrication. des des des agendas monétaires. Mhm. ci biir Afrique bi. bu ute ba léegi ak le scénario SMI bi am aujourd'hui ñu ngi xool ñu discuter. Mhm. le système monétaire international. Mhm. ndax euh, umpale woo avec les BRICS euh, problème géopolitique yi nga xam ne. ñu ngi wax waxul te dollarisation de l'économie. nit yaa ngi commencé xoolaat ndax du ñu mën a gën a renforcer le DTS. ndax du ñu delluwaat à l'or. a beaucoup de débats mais autour de la monnaie et loolu c'est très normal ndax la monnaie. mooy mooy mooy mooy. socle mooy socle économie yëpp. léegi ñun fii Sénégal mais dafa nekk yoon sax ñu war a xalaat mais ñun si agenda yëpp fan lañ ci situé wu ak fan lañ ci war a dem. Mhm. maanaam un pays euh, dafa am foog naa benn président américain bi ñu wax. la société notre intérêt. ah oui mm. Eisenhower. dafa tax ñu créé sax benn matrice de la matrice d' Eisenhower. bi nga xam ne dafa classé les tâches en matière urgence ak importance. ci abscisse ak ordonnée mhm. créer quatre situations yoo xam ne dëkk bu nekk leader bu nekk homme politique yu nekk dañ ci war a bàyyi xel mooy quelles sont les choses urgentes et importantes les choses non urgentes et importantes les choses importantes et non urgentes mhm. ak les choses non urgentes et non importantes et ici au Sénégal question monnaie bi c'est une chose c'est une importante mu ngi ci première case suñu matrice d'Eisenhower bi nga xam ne Eisenhower je rappelle mooy 34e président américain donc est-ce que amul lu jiitu monnaie faaw mu compé euh, faaw mu am euh, mu compétitive. Euh, au niveau international fa laa bëgg ñëw. lii yëpp c'est des adjuvants de la monnaie naa si ñëw ne dëkk bi dafa nekk genre benn géant au pied d'argile boo xam ne mooy mënul sax taxaw nga bëgg ko wutal monnaie boppam. dinañ ci ñëw. Afrique continent africain bii. oui 54 pays la ñu. y a que 17 pays ñoo amul seen monnaie bopp. Mm-hmm. tous les autres pays ont leur problème monnaie nekkul lu extraordinaire la. juste même infantiliser les gens. non mais ni ko nit ñi jàppee benn facteur boo xam ne dafa war a am nii pour mu développer le Sénégal. waaw am na ñoo euh, xam ne boo pas ñi bind programme yi ah. mais ñi koy sama bàyyi ak naas ñëw. c' que sama bàyyi ak naas carrément. parce que hmm. lii nii lu c' est clair et net dafa dafa am benn euh, penseur benn conscientiste bu ñuy wax Guy Guy Carcassonne. Hmm. dafa waxoon ne euh, il ne suffit pas d' avoir une bonne constitution pour organiser le bonheur d'une nation. Hmm. waaye une mauvaise constitution elle organisera forcément le malheur maanaam une monnaie am une bonne monnaie taxul sa économie baax waaye am une mauvaise monnaie moom tel que soit les plans de développement yoo def sa économie mënul dem et situation la nekk fii nag naa fi andi benn sew mooy au-delà de tous ces agendas là nga xam ne qui nous oblige à parler monnaie aujourd'hui ak fi Sénégal bëgg dem ak richesse bi Sénégal am ak souveraineté bi Sénégal di aspirer la souveraineté elle doit être totale wala elle n'est pas léegi nag sur la monnaie nationale bu gars yi jàpp ni mënul nekk peut-être su la ko waxee dinaa leen choqué euh, dina nekk sax révélation pour beaucoup de gens mais le Sénégal a une monnaie nationale. Mmh. ah oui. laquelle. CFA bi na am monnaie nationale. xam nga le franc CFA n'est pas une monnaie unique. contrairement à dégg naa benn prof universitaire bi tax na la monnaie unique CFA nangam c'est tout faux. le franc hmm. CFA n'est pas une monnaie unique. c'est une monnaie commune. sew sew bi tax ma koy wax. Hmm. c'est vrai c'est lu tax ma koy wax. dafa am trois choses yi nga xam ne ñoom ngay bàyyi xel pour comprendre lu tax ñu am franc fa bi si jiitu dafa mel ni ñun huit pays yi ñu woowee les pays de l'UEMOA dañoo déggoo entre ñun kenn ku nekk ne man sama moyen tuddee naa ko CFA. Hmm. waaye sama moyen national la. <coughs> au lieu ma am moyen tuddee ko euh, Séné kay am moyen tuddee ko euh, Malien wala et cetera ñëpp ñu àndandoo ne suñu moyen dañ koy tuddee franc CFA muy benn. ñu àndandoo ne ñun suñu ay parité maanaam suñu taux de change entre ñun dañ koy jël def ko un pour un mhm. peg de un maanaam ñun suñu taux de change du varier mhm. ñuy suñu monnaie mooy tolloo muy ñaar ñetteel bi ñu jël engagement ñëpp di suñu monnaie yi ñëpp dañ koy fexe mu nuróole ñu bokk ay coupure ba pare nuróole ko mhm. waaye kenn ku nekk sa monnaie bopp nga am fu ñu koy defaree mais nu mu demee noonu fu ñu koy defaree da nga yor da yor billet ci yor billet xaalis billet de banque franc CFA génneel milliardaire boo gisee da y a des différences. selon selon les lettres. ay ka am yoo xam ne leneen la très bien oui. la monnaie nationale du Sénégal. ci biir franc CFA mooy tous les billets yi xam ne la letre K moo ci nekk. plus onze chiffres. oui c'est la letre A appartient à la Côte d'Ivoire. la lettre B appartient au Bénin. oui C Burkina moo ko hmm. H Niger ko moom. D Mali moo ko es S Guinée Bissau moo ko maanaam ni kenn ku ne sax mu ne bopp nga am. kon ñun am nañu wane nii. <coughs> moo ne la <coughs> suñu moo ne bopp la ñu lii dafa jar a bàyyi xel. maanaam lii moo tax dans les mécanismes de l'UEMOA ku bëgg bàyyi ne bëggatuma bokk ci franc CFA délai bi matul 6 mois. Mm. pour ñu régler les comptes.

maanaam Maroc ci la bokk Maroc à Dar es Sika. moom mooy defar son dirham. non non loolu extraordinaire moo taxoon ne ma ne ñun monnaie soo xoolee même l'éclatement de beaucoup de pays. Mhm. Euh, chaque fois ma joxe kaawu euh, les grands empires yi nga xam ne dañoo dee. Mhm. Euh, ay dëkk yi xam ne amuñu aucune expérience monétaire bi ñuy taxawal créer seen monnaie. Mhm. création monétaire de ça varie entre neuf mois ak trois ans maximum c'est-à-dire que. man mu ndaw mi nga xam ne en tant que apprenti économiste. oui bu ñu ma joxoon ne ma ñoo bëgg a taxawal une moyenne nationale sénégalaise en moins de ans mun naa ko taxawal maanaam amul expertise bu ñu amul. Hmm. on a des ingénieurs monétaires on a euh, des spécialistes de la, de la macroéconomie on a des banquiers centraux maanaam du sujet bu extraordinaire maa ngi na la billets yi ñun ñëpp bokkuñu xaalis. Hmm. xaalis bi Sénégal ko mu oui bi. Hmm. ñun ñoo ko moom. am na billets yu bëri lii xam nañ ko su banque su billets ñëwee. dañuy xoolaat billet wu Mali ndax dee dafa bëri Sénégal. dañ koy jël defaraat ko. delloo ko Mali. Mm, c'est ça mais ñun ñëpp dañoo engagé wu ne dañuy. nuróole mais jar fii. ah billet Mali bi boo ko jëlee fii. le citoyen du ko xam ni. du ko xam la même réalité moo am ci euro. <coughs> boo demee euro euro c' est pas une monnaie unique c' est commune. France billet euro yi nga gis def ci ah EU yëpp France ko moom. Ah, est Italie moo ko moom et cetera ah. te chaque pays a son code. léegi soo si bëggee génn bu soppee tour bi wala génn changer cadre juridique bi rek bu jeex. très bien moo tax man la nag gars yi ils sont en train un très faux débat ndax ils ont des lacunes en monnaie xam nga xam nag problème bu mag bu am Sénégal. Hmm. daam ñu bëri ñi nga xam ne xamuñu dara am na ñi nga xam ne xaw nañ ci xam dara mais euh, fi li ñuy aspirer ils veulent la continuité bëgguñu dëkk bi dem vers ñi ko xam xam nañ ñi ko xam aussi accepté nañ que am nay risques. créer sa monnaie bopp am nay risques. Euh, keroog par exemple keroog dégg nañ non non xaaral rek euh, Ba. Mm-hmm. ni mu waxee ngay xam ne moom daa d'accord na que ni am nay risques. malgré que warul nekk lu nga xam ne day tax ba freiné nañu que ni du ngeen dem ci monnaie joxe na sax exemple. Euh, non autant pour moi Cheikh Bara Ndiaye laa dégg mu koy wax que ni euh, ku mel ni Amadou Ba par exemple daf dafa euh, tiital mu joxe exemple ci ma jigéen que ni c'est comme si nga war a dem fenn ñu ne la booy génn boo génnee da ngay def accident alors que waxuñu la que ni oto bi boo ci duggee mën nga bañ a def accident comme boo ci duggee mën na la def léegi est-ce que amul ay risques yow selon yow nga xam ne xam nga moo ne il n'y a pas une opération au monde sans risque ouais, voilà jël indépendance dafa am mais taxul ne dañ am na risque kon bëgguñu indépendance dañ toog nekk colonisation non c'est loolu c'est absurde donc ñun waxuñu ne amul risque mais risque yooyu on a on a identifié des préalables comme aujourd'hui la monnaie unique euh, CEDEAO bi gars yi di wax la monnaie commune CEDEAO mhm. gars ils de convergence macroéconomique mais attention dañuy dem vers la monnaie CEDEAO fii ak horizon 2027 mais balaa boobu pour monnaie bi mën a am solo mhm. nañ fexe ba ñun ñëpp suñu inflation ñu ko toloolee à moins dañu fexe suñu déficit public na nekk à moins surtout à léegi la masse euh, la masse salariale sur les recettes fiscales dañ koy yóbbu à tel ratio sur dette publique dañ koy yóbbu à tel ratio encore que ñun ratio yi gars di wax yëpp mais c'est des critères mimétiques maanaam amul benn sens économiquement parlant chaque fois ma ne gars yi ba ci critère u dette lu euh, tax sax ratio déficit public rapporté au PIB qui doit être inférieur à 3 pour ne repose absolument pas sur l'économie mm-hmm. la dette publique rapportée au PIB, mais elle n'a aucun sens, même en matière Je pense que les critères de l'UEMOA, pour cent. on a on a on a copié. Ah. les critères de Maastricht. de Maastricht à a impliqué et Guy Abeille nous a dit lan moo en fait l'UEMOA a copié. Euh, totalement l'Union européenne ça fonctionne de la même manière. Guy Abeille nous a ko créé si angle bureau moom nañ ko créé nii parce que ça faisait ça faisait économie. ils l'ont créé jox ko Mitterrand et puis mu agréé ko et puis gars yi commencé ko doxal. en mm. ce pas des critères yu am lu muy tekki ci wàllu économie. donc kon ci wàllu ut sa monnaie bopp damay wa damay rappeler gars yi ni on a déjà notre propre monnaie. on a une mm. monnaie nationale qui s'appelle le franc CFA. comme ni ko leen dëkk tam kenn koy am monnaie nationale mais ñëpp ñu daa d'accordandoo dañuy bokk tur bi ñu koy tuddee pour mën a réeral nit ñi. Mm. lii benn la ñaar pour mën a dellu vers une monnaie dynamique et loolu on sait le faire. on peut le faire maanaam. dëkk yu nga def ci àdduna bi ëppuñ ci xam-xam suñu ay naataango ñu jàngandoo ñoo yor les monnaies dans leur pays ils le gèrent très bien fii nag en en en Afrique de l'Ouest on a un problème euh, depuis la base de notre monnaie. Hmm. xam nga Issa ñun suñu monnaie. bañ koy créer du ñu ñoo ko créé woon maanaam France moo am benn souci d'optimisation de son empire dans une dimension politique. mu xool ko ne man pour mu optimiser sama empire bi il faut mu unifier ko avec une monnaie je vais créer le franc des colonies mm-hmm. donc initiative France la mu créé ko tuddee ko colonie française d'Afrique mm-hmm. CFA mm-hmm. donc même l'initiative de la création de cette monnaie elle ne nous appartient pas ñu créé ko en 1945 mais la zone a été créée en 1939 après que l'Angleterre a créé la zone sterling France bu ko créé nous n'étions même pas indépendant ba CFA di am France di ko doxal ñu créé une banque centrale bi nga xam ne tey dinaa dinaa góorgóorlu bañ ko sànni xeer ndax seen avocat moo toog fii <laughs> mais cette banque centrale là euh, ancêtre mooy la banque du Sénégal qui a été créée en 1853 dédommagement esclavagiste yi dañ ko créé banque boobu dañ ko teree woon sax finance le développement hmm. elle n'avait droit qu'à trois opérations l'escompte euh, comment dirais-je euh, ñetti euh, opération yu minimale pour les commerçants bordelais et marseillais yu nekkoon Sénégal am amuloo ambition développement économique. donc kon ñun institution monétaire yi ñu am sax c'est des institutions yoo xam ne ñoo mag Sénégal BCEAO bi ñu ko créé en 1959 boobu amaguñu indépendance tey. BCEAO siège am Paris la woon. gouverneurs yi agent trésor français moo doon nekk gouverneur bi tous les cadres ay tubaab la ñu woon. l'africanisation mu ngi am jamono Fadiga c'est dans les années 70. après la première réforme de la de la zone en 1973. sëñ Issa soo bëggee dégg-dëgg. Mauritanie bii zone franc la bokkoon. CFA en 73 dafa toog xool ni lii c'est pas viable et c'est pas sérieux naar Mauritanie laax de xam naa dàq ñu jàng ëpp ñu xam-xam. ni mm-hmm. dañuy génn ci CFA créé suñu monnaie bopp tuddee ko Ouguiya. loolu Ouguiya di jariñ. mu ngi leen jariñ seen développement CFA jariñul ñun. nag di nga fa la amee solo. Mm-hmm. boo amee monnaie da nga war a am un plan de développement économique qui est cohérent et ambitieux. qui doit être vraiment endogène. Mm-hmm. boo ko adossé wul ci loolu sa monnaie du dara. waxuñu question créer benn monnaie kese jox ko benn tur tuddee ko Jolof wala nu mu mënti demee ñun on parle d'un programme de mise en cohérence des politiques publiques avec une politique fiscale cohérente une politique bancaire une politique monétaire une politique économique une politique budgétaire une politique d'aménagement du territoire maanaam dafa am huit politiques yi nga xam ne boo ko boolewul dafa goo économie da ngay fo te suñu gouvernement yi dañuy fo. boo leen doon conseil est-ce que doo leen conseil ñu jiital loolu ba pare teg ko ba mu tegu. doog a xëy rek nañu acca dañuy dem réforme monétaire ngi nii mm-hmm. mais le fait ñu dugal ko ci laay wax. Ah pas ni leer définir nañ ko que ay préalable la. Mm-hmm. mais le fait ñu dugal ko ci laa ne est-ce que mënuñu woon comme nee nañ c'est on a un pays à reconstruire ak yeneen ak yeneen lu nekk la ñuy dégg. Mhm. Euh, bilan bi ñu teg yéen ñii da koy qualifier de négatif. Mhm. est-ce que mënuñu woon a dem ba mu leer ñu ne pays bi mi ngi sur les rails de l'émergence ñu doog taxaw nañu ñu nag dañuy réformer la monnaie. wala dañ ciy dem. Euh, ñun dañoo gëm ni est-ce que teeluñu dugal le débat. ñun dañoo gëm ni dañoo gëm ni. boo waree tabax kër. boo waree tabax kër. doo taxaw ne damay bàyyi ba kër gi màgg ma soog a lijjanti nu nu fondation yëpp dëgëree. fondation moo jiitu kër gi di kawe. Mm-hmm. maanaam quand on parle aujourd'hui d'économie une mm. économie saine jamono bii ñun nous sommes en guerre ah. adduna adduna bi yëpp ils sont en guerre. Mm-hmm. il y a une guerre économique entre les puissances et entre les les régions du monde. Mm-hmm. donc guerre bii nii ku amul sa monnaie bopp et loolu misaal ma siy jox rek mooy misaalu corona. Mm-hmm. ba corona ñëwee. ñun sax dañoo dugg ci affaire bi di tappale rek dégg naa Macky sax mu naan ay dañuy defar plan de relance <laughs> waaw ku musul lancer est-ce ki nga xam ne mosoo lancé sa économie sa économie lancé wul waxee plan de relance qu'est-ce dëkk yi nga dañoo am leur propre monnaie. nekk ñu di négocier ay DTS di saraxu FMI wala dem di yelwaale ci leen dëkk yi. Mm-hmm. ils ont utilisé des techniques de quantitative easing. Mm-hmm. dañoo jël seen monnaie utiliser ko. faire face au corona États-Unis loolu def. Japon loolu def. Angleterre loolu def. France loolu def parce que ils ont un levier bi nga xam ne qui s'appelle la banque centrale banque centrale boobu am benn vision ne moom mandat unique la am tàlluma développement liggéeyuma pour dëkk yi man je règle la stabilité des prix inflation lay règle tout mais lii c'est grave et c'est catastrophique ma dama ne mhm. les débats de fond qu'on doit poser sur la situation économique et monétaire mhm. dans ce pays on n'en discute pas léegi loolu fa dafa tax nag beaucoup de gens sont entrés par effraction sur ce débat te xamuñ ci dara donc je redis que monnaie mooy la Euh, dafa am ñett dëkk yoo xam ne dañoo bokkandoo ay situation utiliser ce qu'on appelle l'arme monétaire pour mën a asseoir le développement ki si njëkk mooy États-Unis mhm. après euh, le grand crash le président Roosevelt dafa dafa articuler benn série de réformes yoo xam ne basées sur la monnaie pour mën a def ce qu'on appelle le le le le le New Deal. Mhm. New Deal boobu monnaie mooy base bi et New Deal boobu en sept ans créé na lu ëpp 485 aéroports plus de 2 de kilomètres de route. plus de cent vingt deux mille xam la moo ko may réformer la monnaie la banque ak la SEC mooy mooy la bourse yemul ci moom même l'Allemagne après la après la sax la grande crise mmh. euh, république Weimar mais le gouvernement le riche là avant la njëkk def mmh. Mmh. mais arme monétaire la utilisé euh, cherche à créer ce qu'on appelle les MIFO monnaie la jël jëfandikoo ko pour defaraat Allemagne tëgg ko ba dindi chômage Allemagne la France a fait la même chose en 1945 ba France jógee ci guerre bi euh, allemand yi escanté France on l'avait occupé on l'a pillé France toog amatul moyen nu mën a xalaatee développement lan la France jëkk def France CFA la jëkk créé l'arme monétaire a toujours été utilisée par les États souverains pour pouvoir piloter le développement dama ne arme monétaire boobu on doit pas ñun waruñu ko xañ suñu bopp on a des armes yoo xam euh, suñ ko bàyyee waxu développement kon waxatuñ ko waaye dañoo nekk waxu waxu àndandoo gars yi ni ka si dem. <laughs> Mame Khady euh, euh, ci wàllu monnaie bi am na yenn économiste par exemple yu soutenir que ni euh, aucune monnaie n'est forte. Tout dépend euh, de l'économie qui la supporte et les produits à forte valeur qui exigent cette monnaie comme instrument d'échange. Mm Par exemple, euh, pour acheter du pétrole, par exemple, il faut des dollars. Léegi maintenant bu fekkee ne tu as du pétrole, donc tu as beaucoup de dollars. Mhm. Donc on parle aussi de de de pétrodollars. waaw ak ak euh, ma yóbbaale ko benn yoon. aussi tamit dañuy wax de bitcoin. Euh, je pense que sa se prononce comme ça. Oui, les waaw kay et bëgg naa aussi itam nga ñëw si. macha allah Adja yow laaj laaj laaj yu am solo nga laaj. Mm-hmm. ñooñu ne monnaie forte amul xamuñu luy monnaie. Mm. une monnaie forte am na effectivement il y a des monnaies puissantes il y mais dafa am dépendance par rapport à l'économie. Euh, dinaa si gën a yaatal euh, nekkul ne ils sont intimement liés il des économies faibles qui ont des monnaies fortes parce que monnaie forte boobu c'est par rapport au régime de change par rapport surtout au taux de change euh, par rapport ak naka la monnaie boobu ban doole la am xam nga quand euh, bi nga xam ne 655 CFA nga war a am pour soog a am benn euro bokkut ak ku am monnaie bi nga xam ne il a besoin de 1300 ci unité monétaire pour am benn euro ñaar ñii seen ay économie sax du nekk benn. monnaie bi su fortee à ce niveau là maanaam su amee benn benn su wàññeekoo day pousse dëkk yooyu sax ñu commencé di gën a bëgg importer euh, que ñuy que ñuy produire ndax les choses soo très moins chères ndax moins monnaie bu ñu am dafa fort mooy les pays du franc CFA. pays yi dañoo dem ba nangu di jël ay marché matière première di ko joxe kese soxlañu pour euh, defar dara ils importent tout de l'étranger parce que suñu monnaie elle est très forte elle mm. forte am na. donte nag euh, bu ñu bëggee defar une économie du monnaie kese la monnaie euh, les structures de l'économie euh, les les secteurs de l'économie maanaam lépp la ñu war a mettre en cohérence dama leer sànq rek yaram lenn bu ci méttee maanaam bëñ bu méttee wala wala wee métti même bu dee wee bi kese la day immobiliser tout le corps mm-hmm. Mm-hmm. Euh, monnaie noonu la mel ci biir économie monnaie mooy mooy mooy base bi koy doxal monnaie bu baaxul dëkk économie boobu mënul baax mais monnaie bu baax na lay def ba monnaie baax voilà une monnaie bu baax mooy monnaie bi nga xam ne mm. aspiration de développement yi dëkk bi am monnaie ko supporter mm. c'est comme nga ne une loi bu baax loi bu baax mooy loi bi nga xam ne dëkk bi yëpp dañoo maase nangu ko pare mu nekk loi bu juste ñëpp ci seen culture ak seen histoire di nangu ni lii baax na pour ñun mm. monnaie bu baax mooy monnaie bi nga xam ne aspiration yi nga am ci wàllu développement monnaie boobu mën na ko supporter parce que monnaie daf koy supporter li tax ma bëgg a leeral bu ndaw boobu mooy que entre économistes yi dañoo déggoowul ci monnaie mm-hmm. économie dafa am benn feebar bu ci am feebar bi mooy dafa am benn école dominante ci biir économie bi tudd ñuy wax l' école néoclassique soo xoolee suñu université yi suñu suñu banque centrale yëpp ñoom courant boobu la ñu gëm courant bu dafa wax ni la monnaie elle est neutre la monnaie benn voile kese la waaye amul solo ndax la monnaie ne remplace que le troc courant boobu dafa juum nag ndax la monnaie et devenue un bien bu ñuy bu ñuy waxaale dans des marché di ko fixer de prix la monnaie n'est la monnaie joue dans léegi nag erreur d'appréciation bi dafay jouer même dans la dans dans dans dans la conduite de politiques macroéconomiques ñoom place bi ñu koy jox moo monnaie wax dëgg yàlla bokkut ak ñuy wooyee les hétérodoxes nga xam ne ñoom xam na ni monnaie am na place ci biir économie. Mhm. donc kon problème bi problème de doctrine la mooy li am ci biir islam. te gis kii ne man école Malik laa bokk. Mhm. kii ne man école Shafi laa bokk. Mhm. kii ne école imam Hanbal laa bokk. ñu am ay uute sur des questions. alors que pourtant bu ñu deloon ci école Seydina Mouhamad bi xam ne moom kese la ñu yàlla toppaloo. Mhm. problème yooyu dañ koy dañ koy dañ koy dépassé. Mhm. donc la monnaie est difficilement perçue. Mhm. man damay dama koy tooñ chaque fois suñu mbokk économistes yi fii les les les orthodoxes là les les néo-keynésiens. maa ngi sax les néoclassiques. dama leen tooñ rek mais yéen monnaie bi nee ngeen dafa dafa neutre. mais ñun ku wax moo ne nga ne noonu bàyyi li ngay wax loolu mënul nekk te yow ne nga dafa nërse ne nga amul solo <laughs> loolu loolu c'est problématique quelque chose qui n'est pas neutre qui n'est pas important buñ ciy débattre ko ne waru laa métti mm-hmm. cool nag mooy ñoom ki ñu jàpp mooy seen yonent ñoom ci wàllu xaalis mm. ñu tudd Adam Smith Adam Smith boobu moo taxaw wax ne trop moo andi monde te loolu njumte la loolu amul mm. maanaam moom dafa traduit baat bi en grec moom dafa ne mu ngi mu tekki troc alors ko baat bi échange lay tekki donc dafa amoon ay lacunes en grec parce que dégluwul grec donc lii moo andi ñoom erreuru gars yi ñuy wax yëpp gëm ni affaire bi troc loon te troc musul am ci àdduna bi sauf en temps de crise la monnaie commencé wul ci troc la monnaie ci crise la commencé ak de la monnaie dëgg la monnaie marchandise. Mhm. donc kon ñun dañoo am problème contre doctrine entre les économistes yoo xam ne ñoom ñooy juumkat yi mooy ñoom ñooy wax théorie yoo xam dara amu ci. Mhm. théorie yi xoolee ci dëggantaan. Mhm. gis ni dëggantaan théorie bi ute na boo laajee la moo tax ñu ute. la non dëggantaan bi dañu war a bàyyi noonu rek mais théorie bi elle est vraie. d'accord ah, c'est des gens qui croient à la vérité théorie même si elle ne fonctionne pas dans la réalité. Mhm. yaa ngi laajte nag si. cryptomonnaie cryptomonnaie. Ah, bitcoin sànq maa ngi lay sànq nag dañoo nekk ci benn situation bi nga ne situation wu euh, benn benn révolution la nekk di xaalis. Mhm. maa ngi rappelé sànq les agendas monétaires yu am dans la zone. mais CEDEAO am na monnaie bu ñu bëgg taxawal. Mhm. Afrique am na monnaie bu ñu bëgg taxawal. monde bi ñu ngi bëgg taxawal ECB. yëpp ay yëpp yi nga njëkk li moom ay frein lañ ci rek. yëpp ay frein la mm. léegi nag mu am nag yeneen deuxième ñuy wax les monnaies technologiques et sociale mm. ñoo am aujourd'hui jamono bi la technologie surtout li ñuy wax les blockchain dafa andi beneen gis-gis bu bees ci wàllu monnaie ñoom la ñuy woowee nag les crypto monnaies mm. mooy des monnaies adossées à la cryptographie maanaam monnaie yoo xam ne. Euh, crise u 2008 bii moo leen lancé lépp mooy ay mhm. bitcoin ay mhm. ay litecoin mhm. euh, même Acoin la bëggoon taxawal loolu après loolu moom neewoon naa du def dara waaye ah. waaye gars yi gëmuñu moom te <laughs> waxoon naa day tappale waxoon nga ko de waxoon naa ko <laughs> neewoon naa ko du def dara jël nay bagage am daw dañ koy yónni woon donc cryptomonnaie yooyu aujourd'hui état yi surtout au niveau BIS ñu wax la banque of international settlement mooy la banque centrale des banques centrales dañoo xalaat ci naka lay joxe état yooyu sax ay cryptomonnaie cryptomonnaie état ñu ngi koy woowee CBDC Central Bank Digital Currency maanaam CBDC yooyu sax mooy comment la ñuy jox banque centrale yi ay monnaie cryptographique pour comme ñuy utiliser bitcoin yi banque centrale di mën a def ay liggéeyam avec la cryptomonnaie loolu suñu zone ñun banque centrale eh, BCEAO daf ko bañ mais zone àdduna bi yëpp toutes les banques banque Angleterre États-Unis Chine Japon toutes ces banques là am nañ projet bi di ko doxal te ñëpp avant 2030 dañ ci yegg nit ñi am retard à cause d'une banque centrale bi nga xam ne ay texam moo ko tënk. mais yemul ci monnaie technologique yooyu. mais l'émanation des monnaies locales sociales complémentaires. Euh, soo seetloo il y a quelques ci ginnaaw Ousmane Sonko waxoon na ko par rapport mm-hmm. sa mairie à mm-hmm. euh, ma gis tapalekat yu bëri génn tollé aussi di ko waaw tollé et y avait rien de quoi foutre une monnaie locale dañoo gëm ni tant que yegguñu dans l'optique de la pluralité monétaire maanaam mhm. ñu am une monnaie nationale am peut sax une monnaie communautaire bi xam ne dina dawaale une monnaie commune bi xam ne tekkiwul ne waruñu am monnaie nationale mhm. amaale des moyens technologiques et sociales yi nga xam ne ñu ngi doxandoo kenn ku nekk ak ay mission mhm. tant dëkk organisé wul ce pluralisme monétaire dëkk boobu mënul def lu extraordinaire ci wàllu économie la doctrine islamique yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom y dans dans l'Arabie bu yàgg ba y avait en circulation parce que beaucoup de monnaie dans une économie dafay dafay accroître la la dynamisation de cette économie hmm. et day hybrider les ressources maanaam lii ñu xam monnaie dëgg laa xam nañ xam lii mooy yoon pour mën a créer rapidement le développement. mais ils ont repen leur pensée on dit que tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et pour le dire arrivent aisément mhm. Sonko bi mu génnee première sortie bi wax na ci détention yi yëpp mais waxaale na ci monnaie bi nga xam ne dañ ko bind ci programme le fait que ñu euh, repréciser ko euh, qu'est-ce que ça signifie mu repréciser liñ bëgg a wax ci monnaie malgré que bind nañ ko mais ñëwaat na ci. waaw xam nga Sonko dañ ko tëj ay weer yu yàgg yoo xam ne dañ ko coupé de contact avec l'extérieur en réalité hmm. maanaam le développement et l'avancée même du programme de Pastef am na si lu bëri li xam ne daf ko échappé et il a si ba hmm. euh, la communication ne passait Mm-hmm. donc tax na euh, draft bi mu yoroon 2019 loolu la santoon les cadres de Pastef ñu liggéey mm-hmm. mais cadre Pastef ba ñu liggéey ci loolu les alliés yi ñëw ñun ñi ñëpp man ci alliés yi laa bokk bi nga xam ne ñun dañoo am des projet monétaires yi xam ne qu'on a mûri réfléchi et, et produit donc euh, ñii ba ñuy ñëw ci biir coalition dañoo àndaale seen participation mm-hmm. ne kat ñun kat bëgg nañ nangam ñu doxal ko wala nangam ñu doxal ko donc c'est très normal Ousmane Sonko dalal déjà gars yi pour bañ créer des polémiques faciles muy benn mais ñaar wane ouverture am pour dire que c'est une réflexion qui suit son cours. Mhm. c'est pas encore figé. Euh, da ci gars yi ànd ak dal après ça va mhm. venir. vraiment mhm. loolu laa fa xoolee. Euh, la précision bu Ousmane Sonko def. donte dama gëm nag ni si c'est ni. la monnaie nationale est un est un impératif. si on veut aller vers le développement mm-hmm. euh, du Sénégal. Abdoulaye Wade pour mais mais mais root nañu lu bëree bëri ci. Mm-hmm. ci doyen rafet na lool ci koom gi. Euh, tudd nga Ousmane Sonko dañu am transition nag dem ci dossier euh, xam naa damay jàkkaarloog maître ndax mm-hmm. gis nañ fi